waaw man maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci seen déplacement seen déplacement parce que quotidien bu ma naw ngeen na gis naa seen ligne édi éditoriale loolu la ñuy wax mm-hmm. <laughs> donc euh, vraiment mu nekk ngeen nekk ñu am éthique ak déontologie te loolu ñuy demandé ci journaliste donc mu neex ma trop beneen bi ci des mooy aussi maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ak diaspora bi xam nga di tàmbalee nuyoo bi ci euh, suñu xarif généraux yi rawatina sama sëriñ sama papa sëñ Babacar Sy Mansour ah, du nuyuwaat Tiwaawan yëpp ak mboolem nit ko baax ku fi nekk sëñ Mountakha Mbacké ak xalif généraux yi comme ni ma ko waxee di nuyu aussi ah, waa diaspora bi ñi nga xam ni que tey jii ah, lépp lu ñu def aussi ñoom seen loxo ngi ci biir di ñaanal sama yaay ak sama papa yàlla xar lañ àdduna àjjana yóbbu leen ci àjjana yi gën a kawe ak mbooloo mu jullit di vraiment gërëm suñu borom di julli ci sang sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa seen ñëw. waaw album bi nag génn euh, fan yi ñu tuddee ko Nder live performance donc ñu génne woon euh, huit morceaux yi démb la six yi génn muy quatorze donc on a essayé de revisiter le répertoire de Nder pour tànn ci quelques-uns ci it yi ñu génne ko parce que ñu woon a génne yëpp euh, c'était pas facile mais c'est c'est au choix euh, des animateurs choix animateurs yi la ak. Euh, les mélomanes ak euh, certains de mes amis donc ak euh, sénégalais lambda yi ñu teel ci mbedd bi yi nga xamante ni bëggoon nañu am yenn moissonnières yi te mënatuñu ko woon retrouver nii ci internet bi nii en en cassette parce que cassette amatul donc voilà ñu ñu ñu a bi génne ko mais sant naa ci yàlla te gis naa ak bi ku nit ñi accueillir vraiment kontaan naa ci trop li ma ci séntu woon am naa ci lu weesu sama njort maa ngi ciy gërëm yàlla suñu kon dafa mel ne album bi day retracé euh, ah, absolument mais bon xam nga mënuñu def yëpp. donc dañ ci tànn yéen yi rek xam nga comme yëpp ngi ci biir frigo bi te dara dara faroxagu ci. Ah. <laughs> ñu ñu génne ci quelques quelques morceaux donc pour pour bëggale te askan wi. Mm-hmm. waaye euh, nekkoon naa ci benn projet boo xam ni euh, am na dix titres yu bees tax yoo xamante ne bii mënuñu ko woon génne moment yi pandémie bi. Mm-hmm. donc ñu essayer retracer waat carrière Nder génn yi nga xamante ne bii nit ñi demande nañ ko c'est à la demande général ñu génn ko pour nit ñi consommer ko en attendant ñu génn complètement ci feebar bi parce que na leen neex na leen fàttali seen i jamono parce que euh, damay wax ni que xëy na am naa chance euh, vivre ak trois générations donc mu mel ni que tey si tey Nder. Euh, encore day gërëm yàlla suñu borom parce que bu fekkee ne Sénégal dafa nekk 16 millions d' habitants am na yaakaar ne xëy na dix millions yi man xaw naa leen bégal mhm. waaw donc mu mel ni que nag kon bu ma leen joxaatee lii mhm. dafa dafay daf leen delloo mhm. te par rapport ak feebar bi par rapport ak tëju bi la ñuy tëju par rapport ak euh, conjoncture bi ak stress bi am ci àdduna bi rawat na Sénégal donc daf xëy na dina am lu leen fàttali ci bi nekk xaleel bi ñuy àndandoog man ba nañu màggee ak sama musique donc moo tax aussi ñu def ko donc vraiment mais am na yeneen morceaux yoo xam ni dañ dañu xaar ba yëpp passé ñu génn ko soobee yàlla. Mhm. incha allah kon mën na jàpp ne lu tax Nder xawoon raar un petit chaîne musicale bi dafa amoon lu mu doon préparé. waaw dama doon liggéey non xam nga euh, liggéey musicien moom un artiste professionnel dafa xaw a métti parce que soo raaree ñun waa saay fu mu ne mais da ngay sant yàlla su borom parce que soo bokk ci ñuy demandé di laaj saay fu mu ne c'est parce que tout simplement am nga am nga empreinte ci ci ci ci ci musique musique bi am nga loo def. parce que am na ñoo xam ne kenn laajtewu leen donc bu fekkee da nga a absenté tuuti sax ah nit ñi la laaj c'est parce que sant yàlla la parce que am na nit ñi bàyyi nañ la xel ba tax na amoo droit manqué di laajte waaye ñu ngi fi dinañ eh, faral di dégg parfois suñu interview waaw ndeer def nga lii dem nga Bercy dem nga Olympia dem nga Stade Demba Diop mënuñu yàlla dogal na ci kàttanam yàlla rek moo mën def lépp waaye ñun li ñu def bari na yàlla dimbali na li ñu def bari na mais c'est p passé fu man léegi fi mu toll nii moom boo bëggee dégg-dégg mm-hmm. ñu ko ñu koy woowee grand boy moom ngeen ñëw seet si ah te dañu bëgg a delloo mbatt ci ndaa la parce que amuma droit bañ a bëgg Sénégalais yi tant yàlla nga may wér ak wérle ak gudd fon loolu Sénégalais yi xaar ci man moom lañ xam ci man comme nag yàlla dimbali nañu ba ñu ngi ci jàmm ak salaam bu leen dara metti duma ma may dara. incha allah. waaw bu mel ne da nga a ñëwaat en force waaye jeune talent yi aussi ñoom dafa mel ñu ngi leen ñu xaw a bousculer. une compétition il faut pas prendre comme ça la musique musique c'est un métier très noble ñëpp xaj nañ ci mais il faut nag ñu ko ci anam biñ ko war a defee man awma ci benn problème parce que mm, Alioune Mbaye der moom musique am doo koy def ni mu ko war a defee donc amul ni amul genre ni poul donc ni ma ko xalaatee laa koy defee te je pense que euh, ci ñu mu jëm ci ñoom respect total la am ci sa musique parce que dama leen respecté respecte bi ma leen respecté yàgg na d'ailleurs dafa bokk sax ci li ma sonal parce que duma bëgg génne n'importe quoi ak n'importe comment sama public dafa xaw fiir par rapport ak euh, qualité musicale bi ma leen tamal parce que man Lemzo jamono laa nekkoon lem Lemzo jamono boobu ma nekkoon bu ñuy wax rek te yàlla tax tey ku fi musique tey jii ak koo mën a doon ci musique lem sa jamono ci ngay tibb ba léegi di ci def fii ci Sénégal donc loolu école la donc école boobu yàquwul parce que ñu ngi fi man maa ngi fi te li may def li euh, dama koy def ci anam boo xamante ni bii damay bëgg ku ko déglu ma jàkkaarloog yow nga respecté ma noonu laa loolu laa bëgg yi ci des yëpp mais musique bi nga xamante ni moom moo tax ñu xam ma dama bëgg bu ma jàkkaarloog suma grand frère yi nga xamante ni bii tey jii euh, yàlla nañ ko gën a yor mais bu ñu demee tey jii ba jël seen retraite nañ xam ne ah am nañu ku ñu bàyyil affaire bi aw parce que maa ngi seen ngi seen yoon maa seen tànk te ñoom ñi may déglu xam nañ li ma wax parce que comportement la musique du du du du du du xam nga du du du euh, du du du du parce que bu buzz fal buzz lay folli donc man doxuma ci loolu ci li may dox mooy def sama musique dans les règles de l'art comme ni ma ko jàngee comme ni may gën di ko parfaire dem naa voyager plusieurs fois pour parfaire suma fecc dem naa voyage plusieurs fois macha allah pour parfaire suma technique de voix te loolu professionnel yi may seetaan wala di ma déglu ci sama sama sama album wala ñi ñëw sama conseil di ma seetaan dañuy xam ni kii xaw na démarqué tuuti parce que dama ko jàng du li nekkoon ci man donc li def ci man maa ngi koy maa ngi ko ciy bëgg maa ciy gërëm di ko sant waaye je suis allé parfaire ça. dem naa pour jëmma yokk li nga xamante ni yàlla defal na ma ko et je pense que bu euh, lu bon lu baax la pour chaque musicien bu bëgg a persévérer dans sa vie voilà. mu mel ni Lamza jamono bi nga waxoon ay temps ñun bercé na suñuy enfance. Mhm. ay 94 95 ñu nekk ay. xale absolument mais ngeen daan génn ay tubes yoo xam ne daf ñu doon marqué. est que tey mën nañu attendre à ce que Lamza jamono retrouvé wu ci benn. genre benn boole way génn benn cassette parce que dafa bokk si lu ñu marqué ñun. man dix ans après bi ma jógee Lemzo Dama Lemzo Jamono je suis allé voir Lamine. te euh, par l' intermédiaire de Habib Faye son jeune frère père paix à son âme Habib benn ko yàlla yërëm on s' est retrouvé pour def benn album ñu tuddee ko légende donc euh, man ak Lamine li ñu liggéey yëpp après ñu ko si cassette def ko ci album génne ko mais malheureusement amul promotion bi mu waroon am parce que. Euh, même morceau it bi nga xamante ni sax moom la doon yaakaar mu toj dëkk bi man moment boobu nekk ma fi dem naa tournée def na album bu pare dem tournée donc ñoom ñoo ko doon toppatoo malheureusement morceau it bi nga xam ne moom waroon a euh, def kii bi dañ ko fàtte sax dugal ci biir album bi <laughs> pour te dire donc mu mel ni que vraiment affaire bu ma bu ma jaaxaloon la bu ma métti woon mais xam nga yàlla moom mooy dogal bon comme nekkuma fi woon tey xam naa gars yi tamit yéene bu ëpp. moom lañ doon demee ba tax na parfois xam nga musique moom dafa ànd ak dafa am lu mu ànd mhm. ah, donc euh, mais je pense que on s'est encore retrouvé on est benn euh, soirée bu ñu animé woon au niveau de la TFM je pense que Korité la woon ñu ñun ñëpp ñu regroupé ñëw def Lemzo Jamono ci télé bi barki démb aussi ci des stv vous et woo naa Fallou Salam ñun daal di ñëw def foofu lañ doon jamono donc c'est vrai que Lamine nekku ci parce qu'il est un peu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla fëgg boppam ah, yàlla mën na ko parce que nit ku baax la te nit ku nit ku jàppale musique sénégalaise la liggéey na ci lu rëy ba tey jii ku ci nekk tey jii mën na bersa daara am loo denc sa bopp am loo mën a jàngal xale yi comme ñun ñun jàng ci mag yi mais je pense que Lemzo Diamono moom mën nañ ko pas formé waat ko ku nekk nekkat lem sa jamono parce que léegi ay mag lañu ku nekk am nga te on est devenu bokk plus responsable am nañu groupe am nañu ñu bokk ci suñu groupe donc ñun aussi muñ leen a bàyyi je pense que un moment mun nañu regrouper def dara gën a bëggalaat Sénégalais yi ku nekk dellu ci li nga nekkoon parce que professionnellement ça se fait loolu amul problème. boo doon retracer tey sa naa di wax jafe-jafe yi ndax teraanga yi ma ci yàlla defal. <laughs> waaw xam nga nag yàlla moom bula am na lu mu lay defal. da nga koy faye yu métti yi parce que nit ku dul daj lu métti amul ci àdduna wante nag euh, da ngay même bu fekkee ne benn teraanga bu la yàlla defal parce que teraanga yi ma ci yàlla defal ci musique bi bari na par exemple damay toog nit woo ma ne ma man de xamoo ma xamuma la man ko am munuma dama laa tudde doom li moom ca ite trondoo te musique bi rek may ma ko parce que abu Aboubacar si xaw ma nu ma tudd am na trondoo yoo xam ne sax mosuma leen a gis man je parle à la télé maa ngi wax ci site internet yi nit ñëpp ba koy seetaan di ko xool ah euh, je parle dans un quotidien aussi euh, damay toog par exemple nit woo ma ne ma bëgg nga yónnee ma sa photocopie carte d'identité mu yónnee ko ko mu may ma terrain benn ba ñaar te duma ko xam duma xam wala benn yoon la ñuy ma si gisante bari na bari na bari na bari na bari na donc yooyu ay teraanga yoo xam ne ak nit ñi nga xamante ni bii dañu may ñaanal te xamuma leen nit ñi ma yéene ah, am na ñoo xam wax na way naa ko sax ci ci album bi am na ñoo xamante ni bii dañ ma mës a yéene su ma toogee lu yàgg dégguñu ma sax te nuy jaaxle yéen waa àdduna ak la famille Nder da ngeen ma mës a wóolu donc loolu xam nga cofeel googu yàlla tabal ci doomu aadama yi ba tax ñu bëgg ma ko te man ma nekk sagaru waykat di tëgg ko fecc yàlla def ci barke bu boowee nit xëm wala mu jëral nit génn àdduna xam nga loolu ngay jekki sax naan lii daf maa naqar ci musique bi boo ko dee def yàlla sax danaan kii gorewul donc lu ci mënti xew rek maa koy sant yàlla suñu borom parce que xam naa ni ak lu mënti demee yàlla am na fu ma ci teg te dama koy sant. ok plus de vingt ans waaw bokk na ci euh, bon xam nga wax naa la nag yu bari moom léegi bëggatu bu ko wax parce que <laughs> lu fa passé la ah, mais quand même comme dafa bokk sama carrière rek bokk na ci euh, bi muy tëgg Bercy bokk na ci bi muy tëgg Olympia bokk na ci bi muy def Stade Demba Diop fii ci Sénégal ah bokk na ci bi muy def euh, New Morning Bataclan ah bay fat damay fàtt sax année yi parce que ay festival yi festival ak ay salles yoo xam ni que mais booba xam nga nag booba booba booba booba média bi demewul nii. Mhm. Hmm, boobu benn télé nekk bu ñuy wax RTS. Mhm. donc euh, boobu média bi demewul nii ko mais je pense qu'on a eu à faire beaucoup de choses mhm. macha allah xam nga mais yooyu yëpp daal. ñu ngi ci sant yàlla dafa gërëm. léegi dañu bëgg a attaqué waat nag. waaw foofu laa ne fi mu nii daal. <laughs> waaw gëmal ni daal réew mi quotidien attaqué. mu <laughs> a <laughs> ñëwaat en force waaw wax tuuti ndax artistes yi. niñ xaw na metti yow ban jàngat nga euh, ñu ko dundee xaw na metti trop waaye ak lu mën a xew am na ñu fi nekk nekkatul ndax Covid bi te ñoo ñooñu gënuñu leen ñun tey ñu ngi wax waxu metti na ci ñun am na ñu ñu gën a mettile parce que seeni i mbokk dem nañu ci Covid bi lañ lañu faatoo ñenn ñi am nañu chance rob seen mbokk sang leen sang leen jullee leen. ñen ñi amuñu chance parce que seen bokk yi ñëwuñu ndax pandémie bi donc boobu aussi damay wax ni rafetul sax encore sax ak nu mu métti métti lu yàlla dogal la ci moment bi mu ko neexee moom yàlla suñu borom ay doomu aadama lañu di alal suñu borom virus Covid 19 boobu mindaaful la comme doomu aadama yi fu yàlla waxaat. taxaw fa fa lay taxaw kenn mënu ci dara day taxaw donc moom la ñuy ñaan moom mi nga xamante ni moo ko bind sama sëriñ bu baax ba Pape Malick Sy yal yàlla yokk leeram donc dégg naa ko ci ndeysaan intellectuel mu ni mu ni mu ni yàlla suñu borom lim bind doomu aadama ci gën a dëgër bopp waaw su sante doomu aadama doomu aadama bañ am na yeneen yàlla mën a sant yooyu def mm-hmm. te doomu aadama mel ni que ci gàttal loolu kon mooy firndeel ni coronavirus mbindaaful la bu yàlla bind comme yàlla ci suñu boroom moo ni lu mu bind doomu aadamaa ko ci gënal waaw na sauvé doomu aadama nag ci pandémie bi te am naa ci yaakaar gi ginnaaw bu ñu génnee ci màggal gi màggalu sëñ Touba gi nga xamante ne bii sëñ Touba xañu ci corona jëm ci mawlud nabi gi nga xamante ne bii sama sëñ bu baax ba sëñ Babacar Sy Mansour nee na ku ne na nga ko defee fa nga nekk ndax bañ yokk feebar bi parce que moom it dafay suivre logique am gëm naa ne balaa gàmmu gi ñëw diggante Touba Tiawan Canaba Ñaseen Njaasaan Laayeen ah euh, waa kër euh, Nimzaat mais xajuñu ci loolu yàlla xam na ko ah. donc dañ ci am njot bu rafet ci kattanu yàlla incha allahu taala yëpp dina passé ñu dundaat leneen ci kattanu yàlla donc ñu ngi wax daal ni metti na encore pour des si ci ñun c'est vrai parce que ku toog pendant six sept mois liggéeyoo ñëpp la ñu ubbi nag sauf ñu waaye ñu gëm sax président de la république ci geste bu ndaw bu mu def mm-hmm. à notre égard nous les artistes mm-hmm. euh, parce que xam nañ ñi comme j'ai l'habitude de le dire kenn mënul matale lépp mais quand même il a eu à très très très beau geste joxe dara pour dimbali secteur yëpp xaj na musiciens yi dañoo xaw bari macha allah sakkan ba ba ñu séddoo. Mm-hmm. séddoo ko moom waaw euh, non ah, sax dafa xaw a dafa xaw a boo nee ah, jox nañ artistes yi 3 milliards somme bi ngan na. Mm-hmm. mais artistes yëpp bu ñu séddoo ku nekk yaa ngi am 126 000. <laughs> te ñëpp ci yam nag au même pied d'égalité amul kii def na fi cinquante ans amul kii def na fi un an. ñi am ka am daal te nekk SODAV. ba ñu demee ku nekk jox na la cent vingt six mille waaw ñu doyloo ko yàlla xam ni acte la waaye xam nga cent vingt six mille pendant six sept mois yorul kenn surtout boo nekkee responsable ah nekk borom kër di père de famille metti na mais yàlla moom li olof di wax mooy dëgg gémmiñ gu mu xaar dana ci stable lu mu lekk ci kàttanu yàlla waaw ah, ba tax na metti na mais je pense que ubbi nañu et dama ciy profité sax ci ubbi boobu ñu ubbi ma première sorti incha allah novembre fii ci Pullman la première sortie d'Alioune Mbaye Nder. soirée soirée de gala dîner de gala maa ngi ciy invité ñëpp sama mbokk yi sama am di jàmm yi sama xarit ñi ma gëj a gis ñi namoon ah, grand boy Nder ak spectacle beeg affaire yi donc <laughs> c'est le 14 allah 14 novembre. Mm-hmm. voilà waaw est-ce que à part boobu am na yeneen. bien sûr bien sûr après sortie boobu dañuy def tournée nationale. parce que région yi nam nañ ma parce que du Dakar rek nag kam Sénégal ah yàgg naa wër ci région yi bon xaw nañ ko gëj a def ndax euh, situation dëkk bi ni mu demee parfois xaalis du am ñenn ñi tal ñenn yi mais baax na parfois nag ni ñu dem nga bëggal leen comme ni ñu ko doon defee donc suñu paree incha allah fii ci euh, Pullman dañuy dem wër tuuti Sénégal bu ñu paree comme yàlla dafa defal après avant corona bi amoon nañu ay dat ñu waroon dem defi Europe mais bi corona bi ñëwee yëpp dañ ko arrêté ak aux États-Unis parce que dem naa fa def naa fa euh, diggante Canada ak États-Unis def naa fa six mois donc am na yu fa prévoir pour def ko fa mais affaire bi moo tax affaire bi moo tax après yëpp dañ ko mujj cancel dañ ko mujj euh, annulé quoi mais je pense que incha allahu taala bu yëpp passé ba nga xam ne commencé nañu dañu reprendre nag suñu activité parce que xam nañ ni adduna mi ñuy xaar te incha allah pare nañu pour bëggal leen delloo mbattu ci ndaal. mu mel da wax Soda ñu euh, président ne dañuy auditer Soda. kii Soda mhm. ma gis artistes yi mobilisé ne kontaan ci. Mhm. yow ban xam nga xam nga euh, liggéey boo gis am na am na ceytu loolu je pense que du euh, du graw garaaw donc baax na boo dénk nit dara un moment nga saytu ko mais gisuma ci lu nit wara parce que ni ñuy auditer euh, SODAV noonu la ñuy auditer yenn banques yi yenn ñuy auditer yenn société yi parce que réew bu dox ci yoon am na société yoo xamante ne bi surtout bu fekkee ni dafa dafa dafa dafa dafa euh, jokk ci wàllu état day baax parfois nag ñu gestu loolu dara amu ci dara lu bon. Ah, mais dafa mel ne am na coow ndax responsable SODAV yi dañ gis ne politique moo ko la mu mel ne artistes yi boobu dafa am ñu nekk pour am ñu nekk contre demoon naa seen point de presse. Mhm. mais artistes na ñu bari ñoo ko sax. Mhm. bon parce que man maa ngi woon suma suma album bi. Mhm. donc xam nga aussi am na yoo xamante ne da ngay am jot nag pour def ko ah bon comme euh, wala boog ñu yëgal la donc yëguma ko gis naa ci télé bi daal. Euh, ci revue de presse euh, ñuy wax ni que euh, donc dañuy auditer SODAV man gisuma ci dara lu extraordinaire lu dul logique la ñu la dénkee liggéey parfois war nañ la mën a saytu bon gisuma nag lu ci nit war a def muy gulwaar parce que liggéey la boo xam ni comme yeneen liggéey yëpp c'est que artistes yi aussi parfois mën nga leen convoquer du ñu mën a ñëw parce que artiste parfois day guddee tëdd mm-hmm. nga ni ko bala ma ñëw midi fekk yëfee jeex donc la plupart des la plupart euh, du temps dafay dafay dafay demee noonu mais je pense que amul amul lu ci lu war a gën waaw. mu mel bu ñëwaatee sa carrière Nder li muy way mbëggeel bari na trop xam naa ni sa album bi euh, titre yi nga nar a jël faar mbëggeel dina ci kii lan moo la war a waaw loolu tamit sant yàlla la parce que euh, ba fii nii loolu dañ ma ko étiqueté dañ dañ ba ma étiquette Nder la mais sant yàlla parce que. je je lance un défi kan moo fi wayul bëggeel waxuma Sénégal de c'est partout dans le monde mais xam nga lu tax ma ma ma ma kontaan yi mooy xëy na anam bi ma koy woyee touché leen nit ñi ba nit ñi jël étiquette boobu tappal ma ko ah mais li may woy ci ci ci wàllu social li may woy ci wàllu euh, euh, actualité li may woy ci wàllu éducation bari na bari trop macha allah. donc waaye xam naa ni may woyee mbëggeel ak ni ma koy façon bi xam naa moo tax nit ñi ni ah Nder moom day woy mbëggeel lu bari c'est vrai bari bëgg bari na mais aussi li ko def mooy sama yaay man sama yaay def ma permettre ma xam valeur jigéen ak ma xam valeur u mbëggeel parce que dama nekk moom mu nekk euh, jigéen bu jàmbaare ba kër muy génn adduna donc bokk na ci li tax ma respecté jigéen bokk na ci li fonk jigéen bokk na parce que am na benn woykat bu tudd Alioune Mbaye Nder boo boo bëggee fonk sa jabar dangay ngay seetlu li sa ndey daj ci sa biir kër su boobaa ci ngay gën a mën a téye sa soxna ci ngay gën a mën a téye sa njaboot da ngay seet sa yaay fan la jaar jaar-jaaram nan la leen yare nan la leen tettee ci lan la leen nampatal ah naka la leen ban façon yaay nga amoon waaw boo bëggee xam li sa day daj sa biir kër baay boo ko boo ko boo ko xamee dëgg di nga mën sa soxna moo tax li ma way bëggeel c'est vrai bari na trop trop trop trop mais thème bu ma ciy wee rek parfois sax day dépassé diggante jëkkër ak jabar yàlla xam na ko day daj day dépassé diggante ñaari way dencante parce que àdduna moom bu ci mbëggeel jiituwul rek àdduna yàqu lépp loo gis ci àdduna il faut mu ànd ak amour bu ànd bu amul amee ci ci ci diggante ñaari réew ñuy dox jàmm ak salaam ñoom ñaar rek guerre du am ci diggante bi te loolu mbëggeel cofeel moo ko la ak dëggu waaw moo tax quoi donc mbëggeel dafay dépasser au-delà de nit ñi ni ñu gisee waaw kii bëgg naa kii nangam nangam c'est vrai mais mbëggeel dafa war a nekk base lépp ci àdduna parce que ku bëgg doo ko yéene lu bon muy sa doom muy sa nijaay muy sa jarbaat muy sa bajjan muy sa xarit muy sa sa sa sa sa sa mbokku réew koo bëgg. doo ko yéene lu bon doo ko yéene safaan li nga li nga bëgg a sabab nga koy bëgg waaye kon bëggee la wóor waaye. <laughs> kon bëggee <laughs> bi dafa la topp ba léegi te la. waaw léegi nag léegi non xam nga léegi am na ñoo xamante ne bii ah ah eh, baal ma ñaatal nga. am hmm? eh, eh. naa 30 xam nga léegi yow bi may bi ak léegi par exemple bi may way li ma def yëpp samay carrière bu ko dundee say at xam nga ni boo ma tudd ay ay trois 3 ans nga yam tey yàlla defal na la chance defal ma chance ba nu jàkkaarloo lu musul xalaat lu musul xalaat nga ñëw toog ñuy waxtaan ci sama carrière donc waaye àdduna moo mel noonu bu ñu daje woon ci mbedd rek ba mu sax di nga ne ma parce que di nga ma rus wax Nder parce que lu mu bon bon euh, xëy na mat naa la pap bien vrai que je fais un peu jeune <laughs> waaw mooy loolu euh, mu mel ni que am na ñu mel ni yow dañ may rus a wax Nder am na ñu ma daan wooye booy ndeer léegi xam na ne man dootuma booy ah te kenn ñu ma wax pas donc xam nga ci diggante bi léegi je doon un nouveau nom grand boy ndeer grand boy ndeer comme ça ñëpp ñëpp. <laughs> kon nag nañu noté léegi ah, <laughs> waaw mu mel ni Sénégal est-ce yaakaar nga ne am na politique culturelle ñu gisee artistes yi ñu développé ak jafe-jafe yi ñuy am ñenn ñu dem ba di leen kettal pour feebaree est-ce yaakaar nga ni fii Sénégal. waaw je pense que am na ko mais dafa gën a yokk dafa dafa war a gën a yokk parce que quand on parle de de de de de Léopold Sédar Senghor on parle du Sénégal le Sénégal est un pays de culture le Sénégal est, est le pays de Léopold Sédar Senghor un homme de culture je pense que culture sénégalaise yóbbu na fu bare bare bare bare réew mi nga culture yamul ci ci fecc ak way culture dafa am lu muy war a lu mu war a jëmmal lu mu war a symboliser ci dëkk ba ci football bi tey jii par exemple am na suñu footballeur yoo xamante ne bii El Hadj Ousseynou Diouf ak ñi mu àndaloon xam nga tey tax na lu mu xamoon Sénégal coupe du monde ba kañ la woon 2002 wala 2000. 2002 tax na ku xamoon Sénégal wala ku xamul dégg nga ko. Mm-hmm. dafa bokk ci culture. te pourtant ñoom wayu ñu fecc ñu. Mm-hmm. bien vrai que ne suñ dugalee bii nañ ci dugal fecc ak way ci biir terrain bi ah. Youssou Ndour ku mel ni Youssou Ndour ak ak ak ñeneen yi ak ak Ismaël Lo Baba Maal Omar Pène Thione Seck Alioune whatever Kumba Gawlo ah gars yi yóbbu nañu culture bi fu nekk ci adduna ah vraiment def nañ ci lu nekk donc état bi aussi dafa war gën a pousser davantage pour culture euh, euh, euh, volonté culture volonté politique culturelle bi gën a dëgër te ñi nga xamante ni bi dañoo nekk ci watu président ñu leen di fay ci suñu xaalis te culture tax ñu ne ci président parce que domaine bu ne président am na ci conseil waaye yi war a àgg ci président pour mu du ko teel a yéeg pour mën a réagir waaye nañ ko ko jàllale parce que nit dafay lekk lu lew li tax ñu di la fay dafa war di jàll ci président parce que parfois nga gis ci télé bi ku ñuy kettal dinaa mën a kitaabu ci kaay mel ni président yëgu ko yëgul dafa feebar parce que nit la. te bugg na def lu baax mais loo yëgul mënoo ko faj te un président c'est c'est le président de tous les sénégalais mun na fu nekk nga ne fa moo tax ngay am plus de je sais pas combien de conseils euh, conseils yi nga xamante ni bii dañu nekk ci wetam te di ko conseil ci suñu wàll muy culturellement nañ koy jege te moom it mu na di déglu parce que sotti ci ak def ci la boo tànnee ay nit. jël leen nii leen yéen kat domaine bi laa leen dénk da may nopp leen déglu ñu am ci yow accès di la wax yi la war a pour yëpp lu war a teel a faju teel a gis naa action yu ñuy def yu rafet yu baax yu jekk am na yoo xamante ni bii aussi day trop tard damay jàpp ni teelu ñu ko yëg buñ ko teel yëg dañ ci taxaw donc ñii fexe vraiment ba euh, message yi war a jàll ñu di ko jàllale parce que ñaaw na trop trop trop trop vraiment at def lu ne ci àdduna bégal leen ñoom ñëpp ci kaw ba ci suuf moo xam comédien bi théâtre la moo xam plasticien bi la moo xam humoriste bi la moo xam chanteur bi la moo xam instrumentiste bi la c'est un artiste te lu mu doon contribuer na ci développement réew mi parce que même bu fekkoon yorewul lu bari am na benn moment apaisement buy am. day jaar ci moom bu théâtre amee mbedd yi kenn du ci ne kenn du xuloo kenn du xeex parce que taluñu ko ñu ngay daw di seetaan mais koo contribué na ci réew mi bu Alioune Mbaye Ndeye wootee grand théâtre wala kenn woote feneen moment boobu nit ñi talum dara lu dem ci tailleur yi ñawlu dem def seen i cils de pose ongle nangam nangam dugg na fii gaa yi jëndi costume wala ñu dem ci tailleur yi ñawlu grand boubou yi te kontaan naa ci loolu trop parce que gis naa ni complexe bi amoon léegi dañ da c'est-à-dire léegi gars yi dañ sul yore olof bu baax teg ko ci yoon te loolu moo dëgg la dañ mboole ñaar yëpp parce que le monde est devenu moderne man ngaa sol la neex mais ni ñu gën a jëlee léegi affaire bi dafa neex te événement yooyu day tax yëpp kii dëkk bi dafay am paix donc nañu taxaw artistes yi bu baax ah, am na image yoo xamante ne bii euh, bu ko sa artiste amee da ko war a jàppale ba bu ëllëgee du am benn image boo xam bu génnee ci télé saan du rafetlu ci réew réew dafa war a ñi nga xamante ni bi dañuy porter flambeau bi parce que ay exemple lañu dem nañ fu nekk ci àdduna bi yóbbu nañu tur Sénégal fu nekk ci àdduna bi su leen gisee ñu dépravé pays yi nga xamante da mais kii ma gisoo Michael Jackson Amérique doo ko defar ba nga xamante ni bu gëstoo sax ñu xam ni kii américain la il avait le talent fou un talent fou mais dañ ko defaral dañ ko defar waaw il faut savoir supporter tes tes éléments waaw dëkk da ngay am équipe équipe mooy képp ku ci war a bokk te war a yóbbu dëkk bi fu sori ñu pousse ko c'est comme ça dafa bokk ci développement <laughs> waaw mais li ma gën a contre mooy am loo xamante ne bi da nga ko war a teral wala am loo xamante ne bi da nga ko war a dëgëral noonu di ko xeex du am relève bu fi ñoom jóg bu fi ko yoroon bu mu fi jógee rek loolu daanu am na dëkk yoo xamante ne bi sor wuñu Sénégal duma ma wax suñu bëggee tey jii def yenn événement yi dañuy obligé ñëw jël si artistes sénégalais yi pour feesal seen seen pour seen dëkk neex nangam nangam parce que toppatoo wuñu seen seen seen jafane boo leen toppatoo jàpp leen rek ñu mel ni comme musiciens sénégalais yi ñun bu ñu toppatoo jàpp leen ñu mel ni américains américain bu génnee benn single bu dox ci àdduna bi mën na toog cinq ans du def dara te boo demee këram day moo dàq mooy dàq pale ñun nag da liggéey cent cinquante ans bala nga am brique. day compliqué de. mel mel ni message boobu moom jàll na moom lan mooy dernier mot ci interview bi. non su ma dernier mooy mooy kontaan rek vraiment te te di ñaanal Sénégal ak sénégalais yi surtout yu nekk ci bitim réew. am nañu jom trop trop trop trop billahi wallahi ah j'ai été un peu partout dans le monde te fu ma dem damay gis way naa leen benn mosu ci album bi mi ngi tudd émigré mhm. na ngeen ko déglu. dama ko way xol et c'est mon morceau préféré yàlla xam na ko donc euh, parce que li euh, ma ko way xol mooy dama koy ci période pandémie muy feebar ma gis ni ngeen daan rayante lu nekk ngeen dugg ci pour yónnee seen i parent wala ngeen yónnee seen i soxna pour ñu mën a dugal seen doom yi école mais dafa metti ndax boo demee ba tëju ndax réew tubaab yi réew nasaraan yi ni ñuy dund ak suñu réew yi bokkul xam ngeen yéen dañ leen confiner confiné pendant combien de mois ah donte la sax ñu ngi wax ñu leen di jàppale waaye jàppale koo xamante ni bii la mu daan def ca di ko yónnee Sénégal moo ëpp fuuf li ngeen koy jàppale bu ci lay fay rentam fay ci ay bilam ah, fay ci lépp li nga xamante ne bii mooy wàllu location ak yooyu comme ni ma ko waxee lu ci des du bari di donc lu mu daan liggéey di ci mën a teral njabootam am na ñoo xamante ne bii seen parents yi sonnoon nañ trop mais ñu boole ko jom parce que man gis naa leen gis naa leen j'ai j'ai vécu ça donc mu mel nii euh, comme li ma wax ca fooy wa rek doomu Sénégal fu mu nekk war naa mën a am lu nekk ndax xamul tax fàttewu leen seen cosaan donc maa ngi leen di big leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a yëpp di wax aussi réewu Sénégal yàlla na fi yàlla dem def dolli jàmm te ñu préparé Grand Boy Nder le 14 incha allah vraiment maa ngi bëgg a delloo mbaatu ca ndaa la euh, yéen xam ngeen ma man xam naa leen am na yoo xam ne jarul sax wax publicité rek mooy wax leen ni date bi tel la waaye fu ma leen kooku moom xam nga laaj bi sax trois secondes incha allahu taala. Ah, ah, vraiment kontaan naa ah merci beaucoup. Ah, interview bi nga ñu jërëjëf jërëjëf eh, jërëjëf. merci beaucoup ah. <laughs>